parrain wu bés bi bés bi nag ki ko organisé di sunu sœur Aïda Fall Jarabi di doomu cees di acteur culturel yàgg di euh, sonn ci culture tey mu jël parrain unique def ko DG Abdoulaye Dièye mu nekk bitim réew ci mission bi ko président Macky Sall mu yebal ñu fii en tant que son conseil spécial ñu ànd ak une forte délégation ñëw teewal ko fi euh, sant ak sargal Aïda Fall Jarabi ci taxawaayam ndax mode yi ñu fi gis modèle yi ñu fi gis ak spectacle bi ñu fi gis tey dafa mel ne aaru Thiès ak caadey Thiès la ñu transporté indi ko fii ci Grand Théâtre National bu ñu tuddee sunu maam Doudou Ndiaye Coumba Rose donc Aïda ñu ngi lay jaajëfal di la wax ne sa frère Abdoulaye Dieye comme ni mu koy yàgg di defee di la jàppale ak di jàppale képp kuy acteur culturel Thiès képp kuy doomu Thiès mais képp koo am jug na pour nekk acteur de développement dina continuer di leen jàppale ñu ngi lay féliciter di la encourager di la wax ne bu ragal dara boo taxawee sa sa frère Abdoulaye Dieye dina taxaw continuer la jàppale ba déwén li ngeen mënoon ren ngeen mën lu ko ëpp pourquoi pas même ñu dem ver un festival ci mode ak cinéma nga xam ne culture dafa nekk lu am solo ci programme euh, bu président Macky Sall muy le PSE mais aussi dans cette vision euh, le DG Abdoulaye Dieye day inscrire ci vision boobu président Macky Sall santaane mooy jege leen askan bi ku ma fal di autorité nga jege askan bi wax naa léegi ne Abdoulaye Dièye xaarul moom nekk DG ku taxawu askan bi c'est un champion du social c'est un homme très jege population yi ku yëngu mu taxaw sa wet Thiès bu jóg mu taxaw muy sport muy culture mu domaine bu mu mën a doon tey nag culture moo aaye ci cadre accompagnement boobu mu yàgg di def ci acteurs culturels Thiès yëpp ak ci Sénégal moo tax mu ñëw fii ñu jëmmal ko fi mu sargal sunu sœur ay defal jarab yi ñu leen di sant di leen gërëm di gërëm aussi délégation bi ñu fa àndal yëpp ak di gërëm di sant képp ku ci jàpp ba ci directeur grand théâtre ak artistes yi fi teew ñëpp ak défilé yi yëpp ak mode yi vraiment bés bi macha allah ala doome na. waaw merci beaucoup euh, maa ngi tudd Aïssatou Fall ñu gën ma xam ci Aïda Fall Diaraby di doomu Thiès di créatrice de mode ñëwoon tey fii def suñu exposition du style mode et cinéma. rien que pour euh, gën a secteur bi ah parce que mode dafa am fu mu toll donc euh, te ñun ñoo koy liggéey donc ma ne pourquoi pas on ose à le faire te yaakaar naa ne comme doon lu ñuy santaane ñoo koy liggéey donc on n'a pas peur de le faire donc loolu moo ñu motiver ñu ñëw fii euh, daal di koy def te en plus à chaque fois dañuy ñëw. dakaar di participer ay affaire di dem aussi si sous région di participer ay exposition yu mel nii ñu ne pourquoi pas ñu def ko comme aussi euh, Dakar euh, dafa particulière donc ñu ñëw fi Grand yaakaar naa ne Grand Théâtre pour toutes les donc moo tax ñu ñëw fi ànd ak suñuy mbokk ànd ak suñuy am di jàmm ànd ak suñuy kilifa ñu ñëw fi def exposition bi. ñi xaaral yaakaar naa ne am nañ ko ah dañuy wax alhamdulilah rabbi alamin c'est tout juste pour mën a gën a nit ñi gën a xam ci li ñuy liggéey lan la. montrer leen la créativité ndax am na koo xam ne ba mu ñëwee léegi daf maa laaj ne ma ndax yaa yaay def lii kon cela veut dire que xamul ki xamul nag da nga koy xamal parce que des fois dañuy yaakaar ne loolu amul ci li ñu nekk wala amul ci seen réew te fekk ne loolu mu ngi leen jege c'est parce que amuñu occasion yu ñu mën a exposer li ñu yore te yaakaar ne li ñu ne tey lu ndaw la ci li ñuy def lu ndaw la parce que ku xam tenue xam c'est de l'argent c'est beaucoup d'argent mais li ñu ci suñu doole li ñu mën ci suñu xam-xam ci fu wane nañ ko di xaar déwén ñu wane lu gën a doy lu mel ni moom bu soobee yàlla yaakaar naa ne dina gën a doy waar ndaxte ginnaaw bi ñu sante suñu ñaar waajur li ma wax léegi damay remercier le président Abdoulaye Dièye ndax euh, di remercier aussi le ministre de la culture duma ko bàyyi di remercier le ministre de l'artisanat parce que ñoom ñooy suñu tutelle wante nag dafa am koo xamante ne wax dëgg yàlla moo jàpp ci suñuy mbagg nag di ñu fecculoo muy le président Abdoulaye Dièye ndax ñun acteur culturel lii la ñu ah, lii la ñu am la mode la culture bëgg ko feeñal bëgg ko développé te moom saa su ne mu ngi ñuy soutenir di ñu accompagner pour ñu développé ko yaakaar naa ne grand théâtre ku koy songo xam ne kenn songal koy loxoy kese ah tenue ko yi ku koy songo kenn songo koy loxoy kese ndax benn rob nga def ci 10 mètres ah def plus de 50 tenues kooku du ay fort kooku nag dañ ciy remercier le président Abdoulaye Dièye moo ñu accompagner ba suñu xel dal kon nag buñ ne déwén dinañ la defal festival kooku dañ koy gëm kon dañ koy dañuy wax euh, di lancer un appel sur tous les acteurs culturels ñu gën a former ñu gën a ay professionnels ñu gën a am vision aussi ci liggéey bi ndax technologie bi dafa avancé liggéey bi avancé ndax boo xoolee cinéma ak les costumes am na fu mu tolloo donc aussi foog aussi ñun jeunesse bi ñu génnee suñuy talent wane suñu bopp ngir mën a gën a euh, jëmmal liggéey bi